waaw boo xoolee espace bi ni mu toll woon tollootu ko ndax boo xoolee kër yu bëri yóbbu na leen waaw boo xoolee presque une vingtaine de kër yóbbu na leen yoo xam ne nii fii lañ nekkoon seeni borom ne fii di liggéey dañoo mujj ñenn ñi dem feneen wala ñu ne ci biir dëkk bi am fu ñu bokkatu luwee fa di di fay seeni seeni location érosion côtière ñu gën koo xam ci géej gi gën gën a jege si di nangu tefes gi lu ni mel tax ñu amal ab taxaw seetlu ci yooyu lay jafe-jafe bokk na ci loraange yi mën a jural alam gi koom-koom gi ah, ba ci askan wi loolu dafay gën a gaaw ah, ndax coppite yi am ci climat bi bi dafay tax tefes gi di dellu ginnaaw ci biir suuf si ci Sénégal tefes gi mu ngi wëy di wàññeeku li gën a fës ci màndarga jëm kanamu géej gi mooy coppite yu bari yi am ci wàllu mbarab ak jamono te loolu mu ngi aju ci mbir yi am ci gox bi ci bileeb dëkk di ji feex nekk ci dëkk bu mag bu tudd Palmarin ca diwaanu Fatik, ci Sénégal mu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu metti jëm ci boobule érosion ba tax na buñ ci teelul jël ay matuwaay dëkk ba dina naxasaay bile dëkk bokk ci dëkk yi gën a ñàkk kaarange ci érosion géej ak dex jafe-jafe ya tar lool ba yoon bi nga xam ne moom lañ boole ci feex ak bët saalum daa yàqu bu baax moo tax tukki bi dafa gën a jafe ci dëkk-dëkk yooyule ñi dëkk ci bileb gox ñu ci ëpp ay nappkat lañ li ñu gis mooy ñu ngi gën di looru ci géej gi ni muy jinaxee depuis 87 la daggoon depuis 1987 la daggoon ben ganax bu fi jaaron bu mag and ak ay vent mo fi daggoon beul bi ngay gis ni muy avancer di avancer di yaatu ba tol ni bo xolé fi dafa raccrocher won ak Sangamar île de Sangamar île de Sangamar mo nek non suñu ginnaw département Sénégal yeb ñu ngi fi te ay migrants kese ñoo fi yop ñi fi dëkk ci commune bi presque mëna wax ne bëriwul Géeréw Ndaayaan Ndar Dakar ñep ñu ngi fi léegi nag ñoom nag ay jafe-jafe kese lañ fiy dund ndax xam nga boo ñëwee di ut si géej gi di ñëw ci sa kaw à chaque fois xam nga sa liggéey dootul demee na mu waroon demee ndax dina am jour yoo xam ne dootoo liggéey da ngay nekk ci loolu di xool noo fexee pour mu loolu taxaw te loolu peut état moo ko waroon def bu ko état deful nag population bi di ko def loolu tardement la leen di indil waaw booleeg ñu yëkkati seen ñaq encore di ci def ndax boo xoolee ñu démb rek ñu ngi ci ket dañ doon ket nii kër gu ñu dugg ñu jox ñu 10 000 francs ñu dajale suñ paree dajale som boobu dem jox ko góor gi mu dimbalee ko waaw boo xoolee espace bi ni mu toll woon tollootu ko ndax boo xoolee kër yu bëri yóbbu na leen waaw boo xoolee presque une vingtaine de kër yóbbu na leen yoo xam ne nii fii lañ nekkoon seeni borom ne fi di liggéey dañoo mujj ñenn ñi dem feneen wala ñu ne ci biir dëkk bi am fu ñu bokkatu luyee fa di di fay seen seen i location plus particulièrement nawet daal la ëpp lu muy ñëw boo commencé mois de juillet août septembre ba octobre daal gi di mais bu bu dee ci saison kii yi moom saison sèche yi moom doo doo ko gis mu avancé par rapport day sëkk sax. waaw ñun de ñu koy dund dund gu metti ndax boo xoolee dëkk bi sax commencé nañ di def seen i ket pour mën a mën a jàppale ki nga xam ne ni moom moo fiy liggéey. nak ndax bo xolé ñi fi nek yépp bo xolé 40 quelque région quarante quelque département yi ni Sénégal yi ñi ngi fi ñoom ñëpp ku ci nek daf fi ñëw di rek du wut lu mu yóbbu kërëm waaw pareen saay nak ñu bay seen activité nek ci lu lu lu bari géej gi wala yooyu bo xolé ñi sama ginnaaw xam nga ay ay nit lañu ñu ñëw fii pour liggéey pour baare état jëlu leen kenn jëlu leen ay bon volonté lañ rek ñu ñëw di liggéey pour pour seen askan boo xoolee réchauffement climatique bi moo indi loolu yëpp nekkul jifeer kese la boo xoolee Sénégal yëpp boo xoolee Petite Côte bi yëpp noonu la demee parce plus particulièrement Dionne Waar tey boo xoolee li ma comme li ma doon wax léegi rek boo xoolee fii yëpp ay kër la woon boo xoolee lii yëpp ay kër la woon mais géej gi yëpp yóbbu na lii yëpp waaw ba nga ba fi fii mu yem nii fii barrage bi nekk nii yëpp ay kër la woon mooy li nga xam ne ni moom lañ moom lañ jàkkaar nii liggéey bi tamit gisoo ko ñi fi ñi fi nekk nii ñoo nekk nii di liggéey muy góor ak jigéen mag ndaw ñëw di jàppale góor gi ci liggéey bi nekk ay ay ay taalibeem bi waaw liggéey bi moom liggéey bi moom dañu koy liggéey euh, guddeeg bëccëg ndax ñoom seen liggéey mu ngi aju ci géej gi bu feree bu géej gi demee ba fer rek ci la ñuy commencé liggéey su demee ba géej gi fees ñu arrêté waaw fa leen saa ñu dem ba ci guddi gi sax ay deux heures du matin kër la bokk ci yi nga xam ne ni géej gi daf koo nangu waaw kër la woon borom kër gi nag mu ngi fi ba léegi xam nga rek jafe-jafe jamono moo tax mënu fay jóge mais géej gi daal laal na ko laal boo xam ne ni vraiment daf xaw a doy waar waaw ñu ngi liggéey nag côté bële mais xam naa ne yegg seeguñ fii mais bokk na ci kër yi nga xam ne ni ñoom la géej gi yóbbu waaw borom kër gi nag mu ngi fi ak njabootam ba léegi biñ fa jógee ñu daldi wutali Dionewar bi lépp diwaan bokk ci dëkk yi gën a rafet ci Sénégal mu ngi nekk ci penku ci feex ca Sine Saalum jàkkaarloo ak Sangomar Dionewar nekk dëkk bu ndox wër loole tax na ñoo mucc ñu ci géej gi ni muy wéy di nangu seeni tool dem sax ba yàq suuf silee ba gàncax gi sax day mujjee suuxe bu ñu demee ba ñàkk ñaari téeméeri meetar ci suuf ba noppi mënd ak bépp yokkute bu meex mi def lee tax askanu jonwaar jóg ngir ñàkk diggante géej gi ak tefes gi ngir aar seeni dëkkuwaay ak seeni suuf ci lu ni mel waaye loolee taxul tey ñu ngi jonwaar fii ci zone bi ñuy wax Fakal donc Fakal fii moom moo jàkkaarloog euh, la brèche de Sangomar boo déggee brèche de Sangomar mooy coupure bi nga xam ne moo fi am 1987 coupure bi euh, en 87 la Ne nekkoon affaire bu ndaw mais bo xolé léegi dafa reuy donc à l'origine Momo moo indi problème yi andi mais loolu yëpp liko indi aussi moy les changements climatiques comme ni ngeen ko xamé aduna bi yëpp diko di joy lu mu nekk lo xamné c'est mondial ñun dans les îles du Sal des îles du Saloum donc si île yëpp mais particulièrement fi à Dionewar ñu ngi dundu carrément chaque jour au quotidien donc les phénomènes du changement climatique fii suuf la nekkoon daaw ren tey mu ngi si géej donc bu ñu taxawul tamit day continuer di dem rek donc il y a ans de cela ou bien vingt ans de cela suuf bi mu nekkoon à cent mètres cent mètres fële si géej gi donc lii ba cent mètres yëpp suuf la woon donc mais depuis quatre-vingt-sept si la problème bi indi problème bi indi problème bi changement climatique ak euh, parce que érosion côtière rek problème la si biir conséquences yi mais problème mu pêche beeg problème immigration sax causé na quoi parce que pêche bi moom moo lié pour que pêche bi bu doxatul xale yi dañuy continuer di dem pour xooli feneen loolu moo indi problème yu immigration yeeg même suuf si nga xam ne suñu maam yi ñoom fi nekkoon doon béy mënatuñ fi béy fii yëpp suuf la woon ay ay tool la woon boo demee si kanam fële na le am na teen bu fa nekk teen bi fa nekk si diggu tool bi la nekkoon actuellement teen bi mu ngi à 10 de l'eau donc pour imaginer ne booy def teen da koy def si diggu diggu tool bi donc tey ji teen boobu tey si digu tool la nekkoon mu nekkoon lo xam suñu population yi dañ dan béy amone autosuffisance alimentaire si mbéy bi donc mënatuñ ko def parce que non seulement avancée de la mer mais aussi salinisation des terres zone bi yeb ngay gis ni toute cette zone bi nga wax zone focale mënatuñ fi béy c'est impraticable pour que ñu def ay agriculture wala euh, éleva ki maraîchage yu demee nonu parce que géej gi dafa xorom dégal suuf si géej gi da ko attaqué ba am xorom. érosion bi moom wax dëgg mu di yàlla dëkk bi ñu wax daal. nit ñi bi bu baax te mu ngi sonal nag soo demee si àll ñu commencé si àll bi wax dëgg année moom day lekk day soo seetee àll bi presque bi daal su doonul nawet daal day am rendement dëgg mais léegi nawet su ñëwee nga xam ne doole ndox bi day am doole moom liggéey dañuy daan. xolé bande sable yi ay jamono pêcheur yi fi ndan dem dem wul pour am jeun mais léegi dañuy obligé dem des kilomètres de des kilomètres pour mëna am jeun té fofu sax jomul problème la encore parce que yéen ngi gis aussi problème dina ko lal quoi problème euh plateforme Sangomar bi donc zone sen zone de pêche bi dañ ko réduire donc maire yi nga xamné aussi ñu don pagne sen vasières yi légui dafa ensemble wu ba nga xamné espèce bi nga xamné moy pagne mënatu fa sax tout fa lepp lu ñu ut muy coquillage am na problème parce que c'est seen milieu naturel de vie changement climatique bi daal indi na problème yooyu donc économiquement culturellement affecte na vraiment la vie des populations insulaires donc mu nekk vraiment jafe-jafe boo xam ne daal bëggoon nañ ci ay solution changement gaa yi ñëw daal ñu ñëw di xool ñu ba léegi gisaguñ di partenaire ñu taxaw daal def dara am nañu doon ah, safula euh, waa ANP daal indi nañ ko benn partenaire mais yaakaar na liggéey testé na nag ah état bi tamit chaque jour ñu lancé ay moyens yu bëri moom war nañu jàpp lu baax ndax région Kédougou bi métti na pare te yaa ngi ne ñu ñu wasi région Kédougou bi kese mais ñu xalaat lu bëri daal ñu mën a jural ndax mu nekk nii région région Kédougou su àndee ak fiiru pétrole bi day gën a métti. ngeen gis ñu installé ko fii sur la façade donc de John c'est pour lutter dañ pour xool nan la ñuy ay solution douce par rapport à l'avancée de la mer soo c'est seetloo système méthode douce la mais bi ñuy wax épimalté donc système bi c'est un corps corps avec des ailes donc c'est fait de sorte que dafa am un corps avec des piquets comme ni ngeen ko gisee nii ailes donc ailes aussi des jouer rôle mais lii gën a tax mu mu jouer son mooy les palmes yi nga xam ne ñoo nekk ci suuf donc dañoo def les palmes en ba palmes yi mooy permettre parce que xam nga bu ndox mi ñëwee ak suuf si day jàll suuf si ak ndox mi day jàll léegi buy wàcc ndox mi day dem bàyyi suuf si donc système de piège la donc day piéger le sable de sorte que au fure et à mesure palmes yi dañuy suulu palmes yi bu suuloo nag da ngay tegaat yeneen palme palme yooyu bu suuloo donc noonu ngay def bi mun a récupérer waale di de refaire la plage Donc c'est un système pour refaire de la plage, quoi, pour permettre à ce que la plage, même vous faites qu'un par exemple, euh, sauf si qui euh, est na, le trait de côte Parce que le problème moi, norme si vous bu laalé trait de côte bi faut sauf si dëgërul, da koy quoi. Donc li day permettre de casser les vagues en même temps aussi de permettre suuf si de a donc si vous garab yi ngeen di gis nii ay garab yi doon dund la ay garab la woon ñu nekkoon fii taxaw comme ni ma leen ko waxee sànq man ma fi ñëw en 2005 géej gaa ngi nekkoon à 100 mètres donc garab yi yëpp fekk nañu naa leen fii ñu nekk ay garab yuy dund quoi ñu daanu ak yeneen palmier ak yeneen palmier yoo xam ne ñu ngi woon ci kanam benn écosystème bu rafet bu rafet bu rafet moo nekkoon ci kanam fii yëpp ay garab la woon ay jamono sax mënu woon a gis géej ndax mangrove li yëpp mangrove moom moo ko bordé woon tout au long donc jamono yooyu amuñoon problème mais depuis la coupure ma ko waxee sànq au fur et à chaque jour que Dieu fait ñu ngi perte ay mètres de terre donc bu si rien n'est xam naa ne géej gi moom day dem fële waaw loolu la. jot na ñu jóg te xeex li di érosion côtière ci suñu réew dellu ginnaaw bu tefes gi mën naa am tal yu am solo ci wàllu koom-koom ci tefesu Sénégal rax ci dolli. boroom xam-xam yi jàpp nañu ni juróom benn junni ak juróom ci téeméer boo jël te feesu dafa am jafe-jafe ci ni géej gi di demee ka ñëw lim boobu day wone ni yaatuwaayu alam gi waaye li ëpp ci askan wi dañoo dëkk ci tefes gi rax ci dolli am na ay jumtukaay yuñ fa tabax di fa dalal ay touriste napp ak xew-xewu aada te loolu moo tax mu nekk lu jafe ngir wàññi yooyu lay jafe-jafe nguur gi ak mbootaayu bitim réew ñu ngi teg ay jéego ngir xeex yooyu lay giraawaale waaye mu ngi wëy di nekk jafe-jafe yu mag ngir xeex bi lépp érosion ñu defar ay jumtukaay ngir aar tefes gi lu ci mel ni defar mbënd yi boroom xam-xam yi ñu ñuy digal itam ñuy ji garabu mangrove ndax mën naa nekk ay bariyeex ci érosion ak mënd askan wi dañoo war a gën a liggéey joxe jumtuwaay ak xaalis bi ci war dëkku Jifeer bokk na ci dëkk yi war a tax ba ñu jël ay mattukaay bu gaaw ndax mën naa réer ci biiru suufu mbeex yi mooy lu ñuy gis lu bari ci yeneeni dëkk ci àdduna bi jamono jot na ngir ñu jël ay matukaay ngir bañ a yàq ji feer rekk waaye ñuy aar bépp barab bu nekk ci wetu géej te ndox mi di gën a yokk waaw solution yi ñu xalaat de mooy xanaa li ji góor gi góoru yàlla gi di def nii xëy na bu ko état jéemoon wala ONG yi wala yooyu au moins mu jéem a tane ndax kii li mu jéem nii au moins am na lu mu baare loo xam ne ni géej gi muy doon avancé bu ñu ko defuloon tey jii ñun jóge nañ fi mais au moins am na pas bu mu def bu ko ñeneen defoon wala état def ko au moins mu jéem a tane mais gisuñ ci benn dimbal de à part moom. waaw lii de ça fait des années maintenant xam naa su ma juumul daal war na mot cinq ans six ans ba sept ans waaw moom mu ngi ci ci kawam bàyyi teggiwul loxoom benn yoon at bu nekk daal mu ngi liggéey di avancé commencé na ko fële ba gis nga fi mu yeg si